ak nan lañ ko bëgg a dérouler looloo taxoon ñun ñu convoqué réunion bi ñoom ñu ñëw aussi comme ni nga ko gisee ñoom ñu ñëw ñu wuyu si ñu toog ñun ñu waxtaanee programme bi ak suñuy perspective ak yooyu noonu yëpp voilà loolu moo waraloon ndaje bi. waa li ñu mën a jàpp ci waxtaan bi mooy euh, ñoom déjà ku nekk jël nga say responsabilité xam fa nga wara tek sa tank xam nañ aussi buñu joggé ci réunion bi ni ni war nañu mëna surtout niveau département yi ñom ñu gëna comme déjà sur le terrain wax les responsables yi nga ñom ño au niveau des départements ñu expliquer ce qu'est quoi le projet nous ñu xam lan projet bi lan lan parti bi parti bi lan la politique autrement. parce que toujours da ngay dégg ay nit naan politique autrement politique autrement mais ñun responsable nañu wàcc ci terrain bi expliqué la population lan mooy la politique autrement bi nga xamante ne moom la parti en avant di tudd ci gémmiñam mbay moo yor réew gis nga pays développé yëpp boo fa demee tey ji ni li leen may koom-koom li tax ñoom ñu développé lépp mbay la boo ma nee mbay agriculture ak grand A jàppal ne élevage mu ngi ci biir yeneen activités yi tamit yi nga xamante ne dafa lié moom mu ngi ci mu ngi ci biir loolu noonu moom moo doxal moom moo doxal réew moo tax ñun dañoo accenté wu ci agriculture ñun ñu bëgg la population aussi ñu ngi leen di ñaan ñoom ñu ñëw ñu adhéré wu ci ñoom ñu xam ne bu ñu bëggee suqaliku bu ñu bëggee dem ci kanam en avant foofu ñoom ñu delluwaat ci ñu delluwaat ci agriculture li may wax baykat yi ñoo ma ko gën a xam yéen ñi nga xam te ne yéen a ngi yéen a ngi observé les pays occidentaux là yéen a ngi gis tamit ñoom leen may leen may doole agriculture bi mo leen may doole voilà motax ñun ñu accentué wu ci. wa satisfaction rek té tamit ma xamni ñom ñoom xam nañu bu baaxa baax lu ñu bëgg ils ont compris le projet motax ñom ñu def déplacement bobu non donc foofu noonu mënuma ci am benen sentiment lu sentiment de satisfaction c'est-à-dire sama xol sedd na ci content na ci te gëm naa ne ay jeunes yu déterminé lañu waaw ils sont très déterminés parce que ko amul détermination ko amul gem gem ci li nga xamante ne moom nga gis wala ci li nga xamante programme bi nga xamante ne moom nga lire kon effort bi nga xamante ne def nañ ko tey jii duñu ko def voilà Kolda c'est pas ici Tamba c'est pas c'est pas ici voilà donc donc amna si ñoo xamante ils sont venus depuis depuis hier kon donc affaire bi ñor na leen te gëm détermination bi ñu am ni nit mënu leen ci jël té gëm naa ne aussi dinañu wàcc sur le sur le terrain wax population bi lan moy mbébétu parti en avant. bien sûr daf may fortifier daf may fortifier daf may daf may euh, may courage aussi ma gëna yok yokk ma gëna yok information bi ma gën ko divulguer partout parce que déjà ñom li ñu def dalal na sama xel war na ma ne ñoom nañu projet mouvement bi waaw c'est un parti euh, légalement constitué parce que liñ ci war a déposé yi ñu ci war def yëpp def nañ ko donc euh, c'est légalement constitué les documents sont là yàlla dimbal nañ daal amuñ ci benn benn jafé jafé. voilà donc euh, jour bi ñuy def lancement bi nit ñi ñëw nañu en masse voilà donc gem nañu projet gem nañu projet bi liñ ci war a def yëpp yàlla soutural nañu ñu koy ci sant tamit bu baaxa baaxa baax lepp dal yomb na si ñun voilà donc ñi may suivre surtout les jeunes te jeunes yu aussi euh, franchement dama am euh, benn ñeewante si ñoom parce que jeune jeunes Sénégal xale yi dañoo bëgg liggéey Mohamed xale yi dañoo bëgg liggéey koo ci wax rek wutal ma ci lu may jàpp wutal ma ci lu may jàpp wutal ma ci li may jàpp kon donc jeunesse boobu noonu du ñu jeunesse boo xamante ne dañoo yaafus ñoom pare nañu pour liggéey mais dañoo gisul woon ñoo xamante ne dinañ leen dimbali dinañ leen wan yoon bi dinañ leen former ba ñoom ñu mën a ci dara liggéey tamit franchement pour nga def ko pour nga am ci réussite il te faut une formation il te faut une formation aussi donc lolo aussi ñun ñu ngi ci ñu ngi ci jox di leen ci jappalé donc lima ma leen di euh, fi may tëjee di leen di ñaax ñom nañ ñëw rejoindre le mouvement ñun ñu ñu liggéey appartenance politique bi wax naa ko waxati ko ñun déranger wuñu foo mënti bok ñun lolu déranger wuñu ñun dal l'essentiel moy gëmal ne le mouvement euh, le parti en avant projet de mu yor si jàppee war nga ci am li mais appartenance politique ça nous ça nous ça nous gêne pas donc euh, Mohamed maa dit, leen di euh, maa leen di sant di leen di leen gërëm di leen di ñaan aussi ci yàlla y télé bi def àdduna bi déjà mais na y a na York. Inch'Allah. voilà merci beaucoup.